bu may nekk dara mun naa ma soo gëmee si bopp lu nekk mun nga ko am mu mu doon teg lu métti bi laa dama ko doon def defa ba yuuxu mais mu ñëwee ne rëccuwu ma ko waaw sama grand boobu maa ngi ko ziar bu baax a baax maanaam waaw borom baax la quoi ndax moom mu ngi dëkk Bambougar maa ngi dëkk Sokone mais terewul ne bu ñu demee Dakar tamit ñooy bokk lépp entraînement bi waaw ma daj fa lu métti nag ma daj fa lu métti métti mais mu ñëwee fi moom wax dëgg rëccuwu ma ko non non te benn weer kese laa fa am lu taxoon ma ñu sax daa tomboon sama mu feebar. sama papa daa feebaroon feebar bu métti. ma xëy rek ma ne ko maa ñibbi quoi ma ñibbisi si fii jëlee sama papa fii ñu delluwaat Dakar. yaa di ko traité ba yàlla meññ tey wër gi yaram quoi di ko sant yàlla bu baax nag. bu ñibbisee nag ma ne ko léegi comme yàlla def na am nga tan léegi ñaanal ma man tamit sama saison neex. mu ñaanal ma ma dugg daanaka lu ma set làmb lépp dama kaa jël huitième bi laa mayee sax. waaw parce que ren def na ba tey li yàlla lu muy tudd di ñaan yàlla na mu gën a yokk waaw <laughs> eh, ci foofee la ñuy ñëwaat encore génn bi ci biir kër gi sooy waajal làmb war a dem ñi ngay àndat bi dem encore waajur bi nekk si biir kër gi say sœur nekk si biir kër gi arara buy waajal làmb xam nga situation bi nekk fii xam nga parfois ñu oola fi parfois nga dem fële léegi looy sentir booy génn en tant que mbër xool na bëri metti na bàyyi say waajur yaay ji nekk fii papa nekk fii sëri nekk fii wala nga war a bëri nag boo boo xamante ne mooy sookonti dinañ ci ñëw nooy sentir say gën waaw su may génn moom xanaa sama moom ñemewul déjà moom damay ay bëri quoi sama bopp moo xam ne lu si làmb sama bopp moo xam ne si làmb ndax Yékini mos na ñëw ba fii si salle bi Yékini dugg na fii te bu ma neexal nee na ma Yékini uuf na la moom sama jëm boobu sama bopp wax na ma loolu waaw xam moom Yékini xaritam la mais sama yaay moom ñemewul ba léegi damay ay bëri mais su may dem tamit dama koy tàggu mais damay ñaanal sama bopp tamit damay ñaanal. paa bi daal de la libéré li nga xamante mooy oto bi pour booy dem làmb mu doon sa euh, sa booy war. waaw su may dem làmb moom bu dee fa sori moom oto bi lañ yóbbu. te bu dee yéen dëkk jege des fois ñu yóbbu lu bëri oto yi lañ yóbbu quoi boobu aussi moo doon loo xamante ne tey ñu ñëw si làmb Sokone en tant que mbër ñu gis que ne Arara fii am na ay mbër ci biir Sokone Arara nekk biir Sokone mais terewut. arara mun na fekki ña nga xamante ñoo doon bëre wala boog am ñuy fekk si arara daje boobu nga xamante ni da nga koy war a daje Sokone te nga nekk doomu Sokone première seen rencontre naka ngeen ko dundee ci biir géew. waaw fii soo gisee a bëgg supporters yoo a génn quoi te dañu seetaan arara loolu moo tax ñu xam si tànk bi du bëre ci biir dëkk bi quoi waaw ndax man dama bëgg bëgg sama supporters am ñoo xam ne dañu amul moyen pour génn kon lamb jamais Sokone occasion la pour ñu ñëw waaw comme lamb bi passé xam bii mais beneen bi ndax bu ñëwee si kii bi poids la say gars yi téye lamb ji bañ ko tirage ma dem fële si rawgad yi daka jaay den ñu fanaan foofu ma del siwaat si poids lu riif yi ma jël foofu supporters yi kontaan ma delluwaat daka jaay di jëlaat seen rawgad yi gaa yëpp kontaan. man na ma bëgg ñuy kontaan rek billaa wala talaay. kon su ma déggee sa kàddu nga ne da nga bëgg fii lambu ja jeexut nga dawal daga jawdin kon bëri dëkk yoo xamante ne bokkuñu eh, te bokkuñu drapeau. waaw eh, noo noo def si drapeau yooyu da nga jël fii wala danga nga daanu fa la wala nu mu demee décortiquer ñu ko. ko jarul laa njëkkee quoi. Hmm. ne fii laa njëkkoon dem sax. soogoon ma bàyyi fii quoi. ma dem Daga Joorin boobu gars yi nekk di yéexoon fii ma dem Daga Joorin bindu si ragoot yi. <laughs> ñu fanaan foofu quoi. waaw même après ma dégg fanaan fii maa ngi dégg dafa daw dafa daw. fekk daw ma de ñaari lamb bi daal ma bañ a raw ma. xam nga pël day bugg nag pël moom day bugg nag. léegi bu ñu fanaanee fii tombé fii mu ngi jeex mu ma dellusiwaat si si guddi gi ma dellusiwaat fi jël poids lourd yi làmb ji neex sama amoon fii bëri bëri woon catégorie bépp mbër boo xalaatoon si mbëri raw kay wala tànk ñëw ci làmb ji billaa wala yàlla mel ñu si ndam mu kontaan si trop supporter yëpp kontaan keroog ñu bëri jour boobu si signé ma delluwaat fee ne jëlwaat raw kay di billaa wala talaay damay toog semaine yoo xamante damay compétir ma ñàkkee fee yàlla may ma fee billaay voilà ñëw ndax araraam ci biir Euh, arène bi soriante ak kiram du ñàkk ay mbokkam du ñàkk ay jigéenam seetaan si du ñàkk aussi ña nga xamante ne mbër lañ ñu ngi biir Sokone mun naa cité CFA mun naa cité ki nga xamante mu nekk ndangan encore euh, euh, le jeune là nu mu tuddati sax. Yunus Yunus ñoom ñëpp ñu ngi fi te ma xam ne ay jeunes ngeen ku nekk yaa ngi toll sa digg doole ku nekk aussi yaa ngi toll si nga xamante moom mooy bëre te ñëpp soxla nañ seen bëre seen dunduñ ci biir dañu gis ñi a ngi bëre. ndax loolu amut njëlbeen wala njeexantal amut loo xam ne yaa ci xalaat wala ñëw ko ci xalaat yow man moom a dëgg ne yàlla comme bu dee booy di may bëri ñoom te ñoom seefaa nag ñooñu damay bëri ñoom dañuy bëri waaw loolu moom dër bi la bi du yomb. voilà ci loolu itam la ñuy ñëw mu doon loo xam ne ñëpp ñu ko doon xaar ci question bi ne ma El Hadj laajal ñu seefaa ak ki nga xam te mooy arara donte arara ngay kii mais dañu gis ne. seen bëre boobu wax dëgg yàlla benn combat boobu kese jar na billet 5000 francs seen wàccaay kese kese dañ gis ne saay boo daanee yaa ngi dawal CFA di ko teg CFA su daanee mu ngi dawal sa arara mu doon lamb joo xamante benn combat boobu rek tax na nit mën a jënd billet 5000 francs ah waaw fu mu nekk nii nag yéen a ngi biir Sokone fan si ku nekk est-ce que nekkul ñu supporter ñoo leen boole wala dinañ de fur et à mesure bu ñu yëgee ci kanam xëy na loolu dina di. ñoom ñoom Seck lu ñu jàppul làmb ji làmb quoi. mbër boo fi daan tee mu jàppal la mer. loolu du loolu du làmb. ren bu ñu dajee njafe si final bi dama kaa daan. <laughs> ñu am benn place bu ñu dajee fii nii. mu fekk moom mu toog quoi. Oh. nuyuwul ma après am na benn xaw ma ni jaam bu dëkk Bambou Gaar mu ne moo tax yéen mbëri ndaw yi ngeen bëgg affaire jàppante en. ma ne ko ñun de amuñu na gars yi ñooy jaxase nit ñi rek. d'après <laughs> père bi ne Chefa jugoon nuyu ko ma ne ko noo baal kon man maay booy baa ma jug nuyu ko. mooy lool mais ba nii Chefa su ma rombee du ma nuyu. man man nuyu ko bañ a faale man akoon garaawut amul problème xaju fi na ñëpp ñoo bokk fii tey te moom su jógee fii dem am si ci yàlla defoon moom combat fii tey Dakar ñu ñëpp dem dem dooleel ko wala ngeen fekkante foofu waaw dem dooleel ko ndax ñëpp ñoo bokk lu ñu xeex ndax te su amee victoire dañu ne soogoon moom victoire du wax du ñu wax Bamba soogoon la ñuy wax mais gaa yi ñoom koo fi mu jàppale mu jàppale mu jàppale mer te làmb demeewul noonu ñu ñëpp benn leen ñun ñoo mën a mayante suñu biir xaalis ñoo mën a mayante lépp tey waaw man foofu laa ko jàpp quoi ndax ñun ñëpp benn ren. billaahi. voilà ci combat bi ñu gis ko ne mag ak rakk lañ la jeunesse ak l' expérience bi ngeen taxaw see final final boobu rek rek rek rek rek presque moo effacé lépp loo xamante ne amoon na naqar ci biir làmb ji ba tax na poids bi sax tax koo neex seen final yàgg CFA. tekwante ngeen ñoo ngeen ci taabul ba ndeysaan ku ne bàkku na yàlla def ngeen sëgg. Arara seen sa diggante boobu yàgg kii gis nañ wàccaay bi gis nañ préparation bi am na loo yóbbu mais am na seefal mu indi loo defar mu dindi loo lu dindi nga defar ba yàlla may ko jël mais décortiquer ñu d'abord foofu dama demoon bi kii bi naka la koy entraînement wala boog da nga demoon ba sonn ndax combat yi wala boog décortiquer ñu daal. ndax xam nga làmb ji tey maam keroog ñëpp gis nañ combat yi mu bëre ba egg final moom moom leer na ko leer yàlla combat bi ah moom Arara amoon noonu combat moom moom si jëm boobu sax loolu la wax. moom si jëm boobu loolu la wax moom leer na ko leer yàlla moom làmb ji alaaraare ma ko ci mënoon génnee ñoo xam nañ ko bu baax sax moom xam na ko bu baax mhm. moom nag suñ combat ma entraînement ak moom mhm. moom du bëre de taxaw rek mu bàyyi ma bëre ba sonn damay nax quoi moom damay nax xam naa dana booy ba baa man na ko rek waaw gis na keroog combat ñu demee ñu bëre bëre ba temps bi jeex arbitre bi war a jox avet kii nii avertissement wala mu joxe attaque ñu meewaat temps yàlla mee ko ndam mhm. waaw di ñaan ñaan ndam mi ne yàlla na ko jëkk waaw ndax làmb aussi gis nañ accolade waaw gis xamante moom làmb ne te a daan mhm. su ma la daanee xam ne man dama la war a daan mhm. loo war a lekk rek ngay lekk mais du lu sa chance doo ko lekk li ñu gën a yéem nag te attiré te am na ñu mu jooyloo paa bi am na jamono bu mu dugg see si géew bi araara fekk mu ngi bàkku bu mu gisee paa bi gars yi xalal ko mais am na ñoo xam dañ dañ jooyi si foofu arara jëf ji nga jëf noonu bi nga gisee sa papa ñëw nga ñëw fecc ñëw bi si moom akulaat ko loo yi am ban yëg-yëg ak lan moo la attiré waaw boobu dama kontaanoon nag ndax moom demutoon sax bu lamb di jeexee gars yi bu ñëw fi ndeysaan gars yi bëri nekk di jooy billaahi wallaahi taala mu daw sama yaram trop billaahi bu demu doon tey ni koon saa yi ma daan sax man su ma taxoon ma taxoon ni koon combat bi kenn du daan te amateur yi soxlawuñ loolu te mhm. ñu soxla jël paa bu lamb di jeexee la ñëw ndeysaan xam naa exemple boobu moom yaram yi mënut a muñ mhm. mu ñëw ndax c'est la première fois mu gis ma si làmb nii waaw di ko ñaanal tamit yàlla na ko yàlla may wér gu yaram ak gudd fan waaw ndax wax dëgg ne yàlla mu ñuy lu bëri waaw yàlla na ko yàlla fay moom waaw bañ jógee ñu ñëw ci la nga xamante ne moom mooy nit ku nekk parfois mbër yi seen jafe-jafe de fur et à bi du am problème mais de fur et à ni nga yéegee poids léger pois lourd te yaa ngi koy ñam parfois nga dem léger parfois nga dem lourd te loolu yëpp ci kattan la léegi nag ña nga xamante ne ñoom lañu yaakaar ne ku wax làmb wax mara sëriñ parfois nga gis ko ci am joor ba dootoo satisfaire parfois aussi jafe-jafe dinay jóge foofu yow actuellement fi nga toll fu mu nekk nii ndax sóoraale nga lu bëri ci li nga xamante ne dal na ñen ñi te yaa ngi koy def très attention si côté boobu. waaw man moom dëgg na yàlla bépp mara ku may jàppale ku may defal ñaan nu ma jàppalee tamit man xam naa mënu ma kaa mais damay def lu ma mën quoi damay def lu ma mën. Mm-hmm. ndax ku yëgatee loo xamante ne damay pour sa wër gi yaram. lépp loo am ko mën a yéene. waaw ndax gars yi dañuy sonn si àll gi di ut ay bagage di la ko jox kon yow tamit soo amee dara tamit foog nga am lu yëkkati teg seen loxo donte mënoon leen fay sax mais loo teg seen loxo rek nit ki moom su la xasee ba bëgg rek wax na quoi man noonu laa doxee quoi te man lu ma gën a neex sax man damaa bëgg entraînement entraînement moom dama kaa gëm trop sax des fois may toog sax ñu ne alaara ah mais day naan siro waaw day naan per yàlla xam na ne wala asi musuma naan siro musuma kaa gis sax billaa wala talaa musuma si waxaa ay siro wala confirmé yi déedéet ci entraînement boobu aussi bugg nañ ci ñëw ak loolu nga xam ne tudd nga ko léegi te mu yàqal ñu bëri gàllankoor ñu bëri ci làmb xale yu ndaw ci loo xamante moo leen yàq mais entraînement bi encore parfois ñu gis que ne am na ñu teel a dem Dakar weñ dafa am entraînement lu mu laaj weñ dafa am jamono joo xamante ne boo ca nekkee am na loo xamante ne wax dëgg la day day wàññi ci yow. Arara géej baa ngi fi suuf baa ngi fi diggante boobu yow dem nga dakaar mais d'abord sa entraînement fii. est-ce que am nga empêchement wala boog lan moo la euh, motivé pour nga dem Dakar ak lan nga manqué fii pour dem Dakar uti ko ma dem Dakar sax ndax fii suñu salle bi dafa xaw a kii quoi dafa xaw a néew doole te fii tamit suuf si pour nga entraîner suuf dëgg da ngay dem ba stade waaw te mbër moom des fois ñu ne foog ngay raar quoi léegi man comme noonu la baa ma jéem a dugg Dakar xool am foofu man bu may ñib si fii yàlla wala boobu kontaaguma sax affaire dama ber billaa wala taala papa bi. affaire bi damaa berte billaa wala talaay bu ñu takk si si si bi lundi mardi ma dem takk sër dem bëre jël foofu su ma juma ma dem njaay njaay sama premier nag bi njaay njaay fu laa ko jëlee noonu laa dem bëree sans contact ndax su ma yëkkati woon fi ba suba sax mbër du ma génne attaque dinaa sonn de mais dinaa fas jom tamit waaye te mbër moom contact la wax. est-ce que yaa ngi ci am tuuti expérience wala boog koo xamante ne expert la ci problème wàllu physique ndax entraînement dafa am nu ñu koy jëlee mu dem ci kaw am nu ñu koy jëlee mu ci gis ko wàcc suuf loolu aussi laaj na parce que parfois da ngay gis koo xamante ne day ñëw rek jël la mu antan ndax kattan la est-ce que loolu aussi réellement yaa ngi ci bàyyi xel bu baax sóoraale ne entraînement dafa am yoon. non man moom yàlla ku may àndal moom xam na entraînement quoi képp ko xam maa la même su gisee forme dañuy xam ne ndax man sama yaram bi du ko yaax wax dëgg ne xale bu ndaw laa dama ko ma fenn su ne kii sax lu muy yëkkati nii jaarul yoon dama lay bàyyi foofu ma dem man moom bu demee Dakar ba léegi moom laa mos a àndal entraînement <laughs> waaw te demee Dakar tamit su ma génnee heure entraînement moom a génnee kër ga su ma ñëw si maa ngi dëkk ñëwaat kër ga toog rek entraînement kese laay def foofu defuma dara entraînement kese entraînement aussi am na loo xamante ne moo koy téye mooy tax nit ki ñu xam ne mu ngi ci en mooy que ne yaakaar naa ne kuy entraîné di dox 24 heures sur 24 est ce que sa entraînement dina kii je pense côté boobu aussi yaakaar naa ne lu mu liggéey bu nekk dafa dafa laaj récupération ak lépp bépp liggéey bu ngay liggéey da nga war di su ma xëyee dem géej su ma ñëwee damay ndekk tëdd nelaw su ma yeewoo rek xam nga maa xiif man lekkaat tëdd nelaw wala ma yeewu dem entraînement su ma ñëwee tëddaat nelaw du ma dem fenn barki Seydina Mohamed heure bu ma génnee rek entraînement laa dem wala azim même biir Sokone ji. Sokone ji moom fii laay toog su ma génnee ma dem xam nga comme si biir dëkk ba des fois ma dem seet say nit. waaw ndax ñu bari des fois dañuy bëgg waxtaan ak yow. foog nga dem nag xam nga su la nga yëg ko. waaw. kaloo waaw maa commencé yëg boppam. mais loolu laa wala te di kontaan si waa Sokone baax. mais moom borom baax dama dégg ñu si jàpp bu baax. Mm-hmm. mais nañ ñaan yàlla lu si kanam mooy raw. derby bi encore dafa ñëw ci biir ñoom Bato puisque fu mu nekk ni Arara mu na mbër yoo xam te ñoo ngi fi encore ce sont Dadi Mbuluma ngi fi Toubal Jagle ngi fi ak ki nga xam te non champion yaa ngi fi te actuellement Arara dafa mel ni ku ñu xabtal ci làmb Arara aussi doon animateur ci làmb waaw may laaj nag pol bi naka la déggee galaan yow li mu nekk ndangaan sookoon la wala Arara bu sampee simpi rek ñëpp awee yow fecc mi ak woy bi nag lan lay def ci Arara ak ban woy moo lay gën a dugg parce que Arara je me rappelle woy bi mais gis naa ne woy ba bu ñu ko woyee non leneen la. <laughs> xam nga mbër animateurs yi dañuy ñëw bu solo quoi.